mbaay waaw kay mbaay soxna Mbodia Mbaay ñëwaat na nag ci 2024 bii nag tarkal la eh soxna Mbodia Mbaay loo ñu andi eh li ma andee baax li ma andi neex na de te li ma andee wóor nag moo tax may njambax njambax ba mu neex ne ma Mbodia Mbaay waxal loo andi eh ma dikkam ma dem ñëwal yoon waa ngi xalal na la ci ko 2024 bisimilah ma xuusal ñëw eh maa ngi saraax ci 2024 at mu bees tàkk vidéo yu bees tàkk eh Mbodia Mbaye ñëwati na waay kontaan nañ de eh, tata Mbodia man sama jëkkër dafa bëgg su ma nekkee moom ci néeg bi eh su ma màccee Dakar ba màcc Dakar ja ba Dakar ja saf moom day bëgg ma wan ndox ma bañ <laughs> ah mu ne day bëgg ma tata Mbodia ma wan ndox ma waaye góor ñi yéen wan ndox la. wann ndox mi yooyu maanaam mu jaar ci gémmañ nga wann ko soo màccee daqaay ba pare pour nga wann ndox mi force la eh wann ndox kenn du ko forcer kenn ci xel la <laughs> eh góor ñu bari ñoo yaakaar ni soxna bu la wannalul ndox ma bëggu la déedéet ndox ma fu muy dugg bu leen doyul dara dootu leen <laughs> eh, nag tarkal la dafa am lu dani eh ndox mi tarkal la dama leen a wutal fa muy jaar pourquoi pas yéen mënu leen faa yem nag yéen bu jaaree ci gémmañ ji dina dem fa mu dem bu jaaree ci gémmañ ji dina dem fa mu a dem am na yoonam du ko ba mu jaar fa ndox du yoonam de <laughs> léegi nag nga bëgg a forcer xale bu jigéen bi moo tax barke Seex Ahmadou Bamba mi ma yaakaar yéen ku ma noppaloo di nga ma tooñ waaye ba sama gémmañ gu muy ratatati waaye lu tax may nopp te xale yi xamaguñu ba léegi lii ma lay wax ay question la yu may tontu dama bëgg yéen ngeen tëj seen i gémmañ yéen a war a noppi yéen ma dëkk war juróom-ñaari réew macc Dakar macc Limon lee lekk doma daa te xooleen maa jóg mag ñi dem ba dëkk mag xale yi bees ndaw yi jeeg du ndaw di may poser question ñooñu laay toog <laughs> ay ko ma noppiloo ci mim réew nga di tataa Mbodia Mbaay man da loola ma jaaxal ay góor ñu naanum ndox du force nag ndox mu soo tedd maa ngi fi ne tarkal la neex ba dee ñu koy naan yàlla yettal ñu gémma ji pour mu fay jaar jëlaat beneen ndox bu nekk ci yéen daal di génneel leen feneen ni leen dee ko fa roose pourquoi fa fa la tool ba ne du nga ko fa roose naan ndox force bu la ñu fontoo xale yi bu jigéen ñi bari ngi ci biir néegi di a dañu leen di naan looy ndox ndox mi du force waaye yéen nag ndox mi ne tarkal la nga di ko naan ne di ko bu leen yaakaar ne ku la naanalul ndox nobu la <laughs> mën na laa nob sax di ndox mee neexuta naan nag kaay ma wax la na ñëpp a ko ndox mee neexuta naan bàyyi leen ndox mi ngeen di forcer xale yi jigéen ñi pour ñu ko wanaasu xelam nangu na ko mais bu leen di ko forcer da leen bàyyi nit ki am envie pour naan ndox ah eh, eh, eh, barke Seex Ahmadu Bamba ya waxal eh bàyyi leen ba ñu am envie naan ndox ñu naan ndox jigéen dina la ñàkk a nopp sax te bëgg naa ndox ma naan ko mais bu leen ko forcer jigéen gi bàyyi leen soxna yi ngeen di forcer ndox mi ndox ma yàlla dafa wut yoonam saa yi taw da ngay gis côté boo xam ne day taa yoonu ndox la. fa la ndox may nee ni fa dégg déggaaral ñu ne fii yoonu ndox la ndox ma toog fa ndox du bàyyi yoonam léegi nag yéen ngeen bëgg a jël ndox mi di ko force ni ki pour ko ci gémmiñam ni koy naan tii eh, jigéen moo koy sentir bëgg ko defal ko bopp su ko sentir bëgg ko defal ko bopp na naan ndox mi naanal <laughs> naanal ba naan fu dara newul da koo bëgg sentir nga ko naanal bu la neexee diwoo bu la neexee sol moom bu la neexee diw sa yaram sentir mais ku jigéen ki moo koy sentir di ko def mais di ko forcer jigéen pour ba ci biir pour mu naan ko mu jàll ci gémmiñam des fois nga njatt ko ko ci boolem gi fu na mu di fa loojoo ko gàll ka wàccu c'est pas normal ndox doo koy sentir du force du force am na yoonam te mi ngi suñu biir yaram di circuler waaye ñu ni xanaa kenn ëpp ñu fi ñun ñu ni tuurum ndox te xamuñu fi ndox ma jëm <laughs> ko ndox mi yaa ko moom dama roose ko ca jigéen ja léegi yow ndox ma dugg saw yaram dafa mung du ndox yëpp ngay dugg am doom des fois nga sëy lu yàgg te doo am doom ndox ma fu mu ne dama leen di ndox ma xanamu ndox ma ne fan la nekk seen yaram di doxaale ak moom léegi nag foofu doyutu la nga bëgg ñu koy njott ci gémma ñu mel ni kuy naan ji dañ koy sentir am na ñu koy sëlmoo am ñu koy galax ni ko am ñu ko daan walaas mais dañ koy sentir nangu la te du xel yëpp ko nangu xam ngeen lan la yoroo leen ndoxum robinet yoroo leen ndoxum robinet yoroo leen meew moo xamante darkaal la nga koy jënd ci bitig ba xooyal naan naturel la leen yàlla jox mu ne ci yéen xamoo ne fu muy jóge ci yéen xamoo ne fu mu dugg ci ñun laa <laughs> ilaha illallah boo jëmbaay doo jëmbax jëmbax eh ba mu neex di fiivri nii di sàllar ñu ko nii eh dëgg du neex man samay dëgg dafa neexut maa gën a bëgg na xale di sëy waaye ndox mi ngeen di imposé xale yi kat ko war naan gis nga fi mag mu sëy ba tàyyi ba toll fu mu war a toll danaanatul ndox ndox dafa am yoonam ko bu ko centré bëgg koo naan baal mu naan su ko bëggee di ko sëlmoo ko bu ko neexee sax tuufoo ko mais nag bu ko forcé ko jigéen ki ñett ko ba muy looju war a wàccu ko da ngay ndox mu su koo naan bu la ndox ma am na yoonam ba ko fa ndax ñun xamuñu ndox mi fan la ne suñu yaram xamuñu ko de nga xam ne yàllaay kenn nag te moo ñu bind am lu mu def ci góor am lu mu def ci jigéen jël ndox ma joxu leen ko pour ngeen di ko bay ci tool bi di ko fa ji <laughs> di ko roose nag muy naan ba doom juddu ca des fois li ñuy saytu lu ñu am doom sax dafa bari ndax moomu nekku saa yu duggee doom ñëw xamuñu fan la ne sunu yaram ñuy naayee kasangoo ko bees mënuñu la ne fii la ko yàlla tamponé xanaa yàllaay kenn nag. léegi nag ma puutal leen yoon mi ni leen fii la fii la rencontre bi war a dëgg fii laay roose nga ne ko ma ko rooseel fii te gémmiñ gi laa dugg roose ko fa nga wan ko far force wala du ma ko du ma du ma ko génne da ko fay loo ci ba fa du force góor ñi mooy am envie pour naan ndox mu jàll ci moom loolu la sentir mais nag tarkal la ca wax ca xoolal yoroo leen ndox mu neexa naan na mu ñu tànk di naan robinet yoroo leen ndox mu ñu tijji ci frigo di ko naan nu ñu neexee ndox i neex a naan ñu ngi koy naan bii ndox nag yàllaa koy def ci nit ki di ki sentir ko ci borom këram naan ko mais bu leen jàpp ka ni jigéen su la bëggul du naan sa ndox déedéet jigéen mën na laa bañ a bëgg sax di naan sa ndox waaye jigéen mën na laa ndox ba feebar te du naan sa ndox ci xel la <laughs> du ñëpp a naan ndox de te ñu ñëpp a mën a naan ndox bàyyi leen na joge ko forox gu ëpp gi ngeen bëgg a imposer seen jabar yi jeeg ju ndaw ji ci biir néeg gi ñi ngi dund lii jël ñaar bi suukar rek puus ma ko rek ni ma ko jëpp sama loos wi rek ma war a yegg sama sama bëri kër ma di ko wan wan nu ma du ñëppay wan attention xale ñi ngi jaaxle di wut maman Boudia naan ko dimbali ñu ci lii kon na kaa bi lii la yéen góor ñi wàllu ndox du far force yore leen ndox mu robinet mu ñu tànk ci frigo yeeg robinet yi di ko naan fi mu dugg ci ñu yàlla da leen wutal yoon ne leen jaar leen fa ja tool ba sotti ko fa roose ko fa mu ji mu ñàkk ji foofu leen sant